Euh, mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi mbokki jataay bu tedd bii euh, nga xam ne dayratu daayiratu xuratul ayni bu kër sëñ Suhaybu te ñuy ñun ñëpp ñu bokk bokk ci ñoo ko amal ñoo koy amal ci jamono ju ne ci koor gi ci ci koor gi ak ci ci màggal gi mooy muy bu dee màggal gi moom la ñuy tuddee diversité màgg di màggal euh, kon ñu ngi am mbégte tey di dellusi di dalal ku tedd euh, di boroom xam-xam di sëriñ Basiiru Mbàkke di sët ci sëñ Basiiru sëñ Basiiru doomi sëriñ Ibrahima moom sëriñ Afe la soxna xadi soxna xadi moom sëñ Basiiru di way juróom moom nag ba mu tollee ci jàng bustaan la doon jàngi alxuraan jóge fa sëñ Moodu Xayri mu sëñ am Amsatu Jaxate moo ko jàngal xam-xam daara jooju ñuy wax euh, euh, Gaston Berger bu bu euh, nun koy waxeeti sax bu Kaolack fa la jànge ba am bac ci Euh, njàngale mii ci réew mi muy muy muy muy école francaise bi nga xam ne ci lañuy jànge ci réew mi mu jóge fa dem Belgique àggale fa am njàngam ba euh, def fa doon ab ingénieur agronome agronome mu doon koo xam ne euh, jamonoy suñ njiit lii fi jiitu muy Abdoulaye Wade doonoon na benn mustasaar doonoon doonoon na ko ab conseiller ci wàll walla gi nga xam ne moom la moom la moom moom la def taxasus moom la jàng muy wàllu euh, agronomie euh, jàppale ko ci liggéey yooyu yu bëree bari bokk na ca ab tool boo xam ne euh, benn projet agropastoral boo xam ne am ab laa taxawaloon na ko ca Kébémer ñu fa daan yar ay nag ak yu aju ci mbay ak lu jëm moom moo ko moo ko taxawaloon moo ko yoroon. Pout am na fa ay tool boppam. njëkk loolu lépp itam amoon na benn projet boo xam ne mi ngi nekkoon fële ca euh, Sédhiou ca Casamance ñu koy wax Brimoka moom moo ko jiite woon. foofu euh, kon jàmbaar joo xam ne walla gim giñ ko jox tey ñu war a waxtaanee waxtaan woo xam ne mi ngi aju ci euh, koppar muy xaalis monnaie ak indépendance yàlla yàlla jortu naa ne dana ci am maanaam lu mu ci mën a baaxee bu baax a baax. kon mbokk yi gan gu mel nii ngeen am tey euh, ñi nga xam ne nag ñoom lañ cëralee bisub tey bii mooy sang bu tedd bu bu màgg boobee ñuy wax sëriñ ma surang surang doonoon kenn ci jàmbari yoon wi euh, ak njabootam itam teew danañ fi teew waaw danañ jël kàddu incha allah bi bu yëfi jeexee kon mbokk yi ñi ngi Euh, jiital ci nuyoo bi sëñ Cheikh mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi te buñ ko tuddee rek tudd nañ euh, xalifa général de Mouride muy sëñ Sidi El Muxtaar di di ko sant bu baax ci taxaw gi muy taxaw diine taxaw gi muy taxawu yoonu sëñ Tuubaa yi ndax lii nu amal fii nii benn la ci li wundu taxawu. gu mag gi nga xam ne ñu ngi koy taxaw mi ngi koy taxaw diine ndax ku ne xam na ne sëñ Souhaïbou bu waaram ci euh, yoonu sëñ Tuubaa bi xam-xam ca la waaw te mi ngi ci doxee nam ci waroon doxe kon ñu jox kàddu gi Cheikh Mamadou Bachir aouzu billahi mina sheytaani rajim salaatu jërëjëf sëriñ Tuubaa wax ji ñooy jégglu ci euh, maanaam euh, liñ ñu xaw a yéex a jot ci ci thème bi euh, sama rakk ji am sa ak sëñ <laughs> Abo sama sang bi rek xanaa ab jaam daa amul ndigal moo tax euh, thème bi ñu jox nag xëy na du sama specialité waaye dañ ci jéem a génn rek yenn xalaat yu ñu ci am ak ñu mën ko bokkee xëy na sëñ Jili mi nga xam ne opérateur économique la man cee gën a dolli dal ndax ni mu ko waxee fii xam naa jotaayu xam-xam la ndax sëñ Chant bu mu ko tudd tudd xam-xam. xam-xamu diine xëy na moo ci jiitu waaye xam-xam jàpp naa bu am njariñ ci àdduna it xëy na xam-xam la bokk daal te it ci ci jaamu yàlla la bokk euh, thème bi nag mu jëm ci li ñuy wax wàllu monnaie bu ñu waxee monnaie Sénégal CFA la ñuy la suñu xel dem euh, domaine la boo xam ne nag xam naa ni tudd ko sax daanaka aw fit loolu moo tax nga tudd ko tax domaine la boo xam ni njiit yi fi nekk yi fi nekk yi jaar yëpp bu ngeen ko seetloo campagne électorale ak yëpp kenn du wax ba tudd ci lëm ci monnaie nu ñuy def ba am suñu monnaie bopp wala nu ñuy def ci affaire monnaie kenn ko kenn laal day domaine boo xam ne nii France ko dañ cee yilif not ci noo xam ne nii boo mu aw fit lool sax daanaka doo ko tudd affaire franc CFA bi danañ ci gën a euh, dafa mel ni lu ñu xaw ragal a tudd même président africain yu bari sax duñ ko tudd fan yi la ci président début tàmbali wax tuuti naan war nañ koo seetaat président Mathieu Kérékou sax bi mu jeexal nguuram dañu man li nekk naa fi ba dem xaw ma lu mu doon nga président bu yilif am réew pare xamul sax nu CFA bi di fonctionner loolu kon jar na jar na gëstu euh, li ñu ci bëggoon waxtaanee rek ci thème boobu mooy dañoo bëggoon jël ñeenti point maanaam fàttali tuuti rek xaalis lan lay jëriñ lan mooy fonction ak itam yan forme la mën a am euh, wax tuuti ci zone euro ak zone CFA xëy na sëñ Abdou Khadir dina ko gën a développé. ak itam wax tuuti ci indépendance ku am sa xaalis moom sa xaalisu bopp ak lu mu joteeg moom sa bopp daal ci wàllu économie euh, ci fonction de la monnaie euh, ki ko njëkk xalaat bokk na ci ku ñuy wax Aristote maanaam jiitoon na yonent yàlla Iisaa daanaka ñeent fukki at ak nangam moo njëkk a jox ne li ñuy wax monnaie euh, ay fonction moo am fonction économique moo ci solo muy ñetti fonction mooy bi ñuy wax unité de compte intermédiaire ci échange yi ak réserve de valeur loolu ñu ko mën a tekki ci wolof maanaam xaalis li muy jariñ ñu ture ko unité de compte bu xaalis amutoon li ngay mën a def rek mooy maanaam am naaw nag xëy na ñaari xare koy wecci wala ñeenti bëy wala juróom fukki ganaar xam nga loolu kon du am lu leen boole ndax boo yorut xar bi da nga yor xar wecci kook nag doo xam nag bi lu muy jarlu da nga naan man naa wecc ci ñeenti xar wala mën naa wecc ci juróomi béy ainsi de moo tax bu amee CFA ñu ne nag bi tey deux cent mille lay jar ku ci nekk dana xam valeur nag wi ñu ne xar mi cent mille lay jar wala béy fukki junni lay jar loolu moo loolu mooy première unité bi muy unité de compte ñu mën a xam li ñuy xayma ñaar lan la beneen bi dana waral ay jokkalante diggante jënd ak jaay ndax loolu bu amutoon weccee mooy am avant xaalis di am li ñuy wax troc boo amee tey aw nag comme exemple ma joxe nga dem wecc ko mu jox la ñaari xar wala mu jox la ñeenti bëy léegi nag bu fekkee xaalis am na mën nga koo jaay ba pare dem jëndaat kooku intermédiaire la pour yombal jënd ak njaay ñetteelu fonction bi moom la ñuy wax réserve de valeur ndax bu amutoon booy weccente ci saa saas nga koy def day jox kii xar mu jox la bëy wala nga jox waaye bu fekkee am na unité am na réserve lu ñuy wax unité réserve mën ngaa jaay si yëf denc xaalis bi. bu bu la neexee nga dem ba toog nga at ñaari at nga dem jënd li nga bëgg a jënd bu dul loolu da ngeen di échanger kon loolu mooy fonction yi nga xam fonction économique yi nga xam ne am solo la muy fonction am na nag fonction politique ak fonction économique fonction socio-économique comme boo demee Europe ñoom bi ñu taxawalee euro tax na ñu am doole par rapport ak américains yi tax na itam seen diggante boo jógee ci am réew dem ci beneen réew du am benn problème euh, weccente xaalis bi dootu jafe comme ni ñu jafe woon ndax ñu nekkoon Europe xam am marque. biñ créé seen euro ñoom yombal na seen seen i jokkalante ak seen demalante seen dikkalante te it may na leen xaalis bu leen may doole ñu mën a jàkkaarloo ak américains yi face face au dollar loolu mooy un euh, économique yi ak ak politique yi fonction euh, les formes de la monnaie forme monnaie yi am nag comme am na lu ñuy wax ñeenti façon la ak bi ci gën a xam nag moom mooy dañu am bu ñu wax monnaie marchandise monnaie marchandise mooy bi xaalis amagut comme ni ma waxee sax dañuy weccante boobu xorom sax nekkoon na moo ne xorom or ay tissu wala ay ay ay péri périténie sax mënees sa ko def xaalis di ko weccante bi loolu ñuy wax monnaie mone monnaie marchandise biñ ci jógee ñu am euh, li ñuy wax euh, monnaie métallique nga xam dañuy wut ay or ci or la tàmbalee dañoo pièce or bi ni nangam lay jar pièce xaalis nangam lay jar ainsi de suite ñu koy weccante. biñ ci jógee ñu am lu ñuy wax monnaie fiduciaire monnaie fiduciaire nag moom li ñuy wax confiance léegi pièces yi pièce de weccet yi nekkatul weccet or wala wurus waaye confiance bu nit ñi am ci weccet wi mooy tax monnaie boobu taxaw xam nga boo ko seetee billet de banque bi 10 mille francs jëmmi billet bi amul benn valeur pièce su 500 francs pièce bi métal bi amul njariñ waaye confiance bu ko nit ñi jox xam ne lii jar na nangam wala mën naa jënd nangam. loolu moo waral euh, intérêt bi mu am loolu la ñuy wax monnaie fiduciaire beneen bi mujj nag nga xam ne duñ ko gis te mu ëpp solo ci monnaie yi en fait jokkalante bi mooy li jaar ci banques yi ñu koy wax les virements bancaires ñu koy wax monnaie scripturale nga xam dañ koy bind rek mais kenn du ko gis ndax boo demoon ci banque tey nii versé leen ma ci sama compte bële nangami million dañuy bindante rek banque bi day bind ni jëlee nañ fii jox kee ne kii itam bind jox ke kii bind jox kee bu ngoonee compte yi am compte yi am euh, banque centrale banque bi dem ni kii amel na ma nangam jël nañ ci sama compte nangam jox ko compte banque sangam ñu jokkalante bu ñu paree nag ñu def seen bilan loolu moo ëpp ci xaalis kenn du ko gis waaye xaalis ay par ay virement lay doon. mën nañ cee boole itam carte gab yi ñu joxe léegi ku dem ci banque yor benn carte bancaire boo dugalee génne génne xaalis. mais jëmmi carte bi du du xaalis hmm? ma ngi mel ni chèque itam chèque ci xaalis yooyu la bokk ndax mën nga joxe chèque ñu jox la ñu jox la ñu jox la xaalis foofu xëy na dañuy ràññale li ñuy wax chèque li ñuy wax moyen de paiement ak ak pay ak ak monnaie bokkul ndax tey par exemple bii ñaari junni boo ko lakkee ñàkk nga xaalis bi mais sa carte bancaire tey boo ko lakkoon it du tee xaalis bu des ci banque bi kon forme de monnaie la boo xam ne doo ko gis mais mais existe na. Euh, loolu mooy mooy fonction de la monnaie forme de la monnaie yi nag lu am solo la ci am réew danañ xool ak indépendance ndax dëkk bu mënta téye sa monnaie euh, politique monétaire li muy jariñ mooy ci ngay mën a fixer say prix ci ngay fixer sa taux d'intérêt yi banque yi lebalante wala boo demee ci banque di leb intérêt ba ci ci tegal maanaam politique monétaire moo koy def kon réew bi bu amul politique monétaire am du am politique banque centrale am du mën a fixer yoo xam ne nii euh, du mën a ay ay ay prix marchandise léegi pour dugg ci lu gàtt ci comparaison ñaari zone euro ndax day am ñoo xam ne waxee Sénégal amul indépendance monétaire mën nañ la ni France it amul indépendance monétaire ndax France dafa bokk ci communauté européenne boo xam ne dañu bokk euro waaye ñaari différence yi yi ñu gars yi di naxee léeg-léeg mooy zone euro avantage yi am bokkut ak avant zone zone ndax euro ay réew yu am doole ñoo ko seq yoo xam ne dañoo créer seen communauté économique ba pare door a créer seen monnaie ndax li ñuy wax CE moo amoon communauté économique européenne biñ demee ba 1992 ñu def traité de Maastricht ci lañ d'accord pour créer seen mone bokk ñoom fekk na seen économie développé woon na lu bari bari avant hmm? loolu xëy na li ma ci wax sëñ Abdou Khadre dana ko jotali après te ñoo bi ñu ko defee am nañ ci avantage yu bëree bëri ndax seen banque centrale yi ñi ko bokk ñoo créé benn banque centrale européenne di décider li ñuy génn ci xaalis ak li ñuy delluwaat ci xaalis euh, permettre na itam seen dëkk yi jóge ci am réew dem ci beneen réew du am benn frais du am benn frais du douane libre circulation ci diggante pays loolu mooy avantage yu bëree bëri. bu ñëwee nag ci zone CFA bu ñu ko xoolee bu baax zone CFA dafa mel ni dañoo créer zone xaalis bu pare door a zone économique bi ndax bu njëkk UEMOA UEMOA rek la doon ñuy wax union économique. bu yàggul lañ ci doole monétaire donc ñoom seen xaalis jiitu na ñuy boole seen i économie te ci histoire lu yéeme da ci am ndax colonisation francaise moo ñu imposé woon franc CFA bi euh, mu am ñeenti condition ndax bi France jeexalee li taxoon France créé ko après crise 1929 bi 1939 bi ak guerre bi guerre mondiale amee ñu dévaluer seen xaalis. ci lañ bëgg protéger seen marché tax ñu maintenir pays yi ñu colonisé woon yëpp dugg leen seen zone zone franc bi jox leen france CFA. li ci metti nag mooy dañ ca teg ñeenti condition yoo xam ne mën nañ ko jàppe avantage mën ko jàpp inconvénient li ci ëpp nag inconvénient laa ko gën a noonu ndax pour nga bokk ci zone CFA bi say say devises yëpp 50 pour cent ci sa li nga am ci sa xaalis da koy déposer ci trésor France. Mmh. <laughs> loolu quand même lu lu lu doy war la. fi mu ne Sénégal bu jaayoon tey mille milliards il est obligé genn wàll gi muy cent milliards mu déposé ko ci compte trésor France France di ci liggéey dañu ci lebalaat dañuy defalaat leneen loolu boo ko seetee fi mu ne bi ñu seetee année defe naa at mi passé nee nañ zone CFA bi li ñu am ci xaalis ci compte France dem na ci 8000 milliards de francs juróom-ñetti junniy milliards ma ngi ci compte France boo xam ne pays africain ñoo ñoom ñu koy leble ci àll ci banque yi di ci amaat xaalis mm-hmm. ci loolu ci la ñuy dimbalewaatee mm-hmm. waaw loolu ci lañ aide au développement dañ ko ci génnewaat mm-hmm. ci intérêt yi ñuy jox da fi nekkoon boo koy seet li France dimbale Sénégal yëpp li ci ëpp delluwaat nañ leen ko sunu xaalis bu nekk foofu deuxième condition bi mooy dañuy CFA ak ak euro dañoo fixe taux bi du changé alors taux bu dul changé nag li muy signifié mooy euh, ñun amuñ amuñ amuñ benn pouvoir suñu pouvoir monétaire ndax bu euro bi daanoo suñ xaalis daanu bu euro bi yéegi suñ xaalis yéeg te boo contrôlé woon sa monnaie soo bëggee jaay bu la neex nga wàññi sa xaalis soo bëggee jënd mais comme ñoom ñoo ñuy jaay seen xaalis gën a fort suñ bos ñu jënd luñ bëgg a jënd buñ transformé jaayaat ñu ko ci lu gën a yomb si ñoom loolu itam euh, fixité boobu am na problème ndax boo amul contrôle ci sa monnaie doo ma jënd ki jaay moo war a fixé valeur monnaie mais du caaginu am réew muy dépendre ci ba yeneen réew franc français la woon léegi muy euro beneen bi itam ñu ni mën nañoo weccee xaalis man nañ ko convertir loolu boo ko seetlu tey boo demoon Amérique yóbbu fa ay franc CFA la ko defal ay dollar mooy nga def koy euro door ñu door la ko defal dollar donc itam loolu wax nañ ko ci kaw ne mais ci biir xëy na am na mënees na ko weccente beneen bi ñu waxoon mooy libre circulation de capitaux entre France ak pays africains yi. mais loolu boo ko seetee dana permettre français ñoom ñu indi seen xaalis su leen neex investir lu ñu fi gagné delluwaat ko seen réew mais nanguwuñ ko ci diggante réew africain yi ko seq ndax fi ne boo jëlee woon CFA Gabon di ko indi Sénégal am na taxe bu ñu ci teg ku ku yónnee xaalis ci Western Union am na taxe bu ci teg te loolu taxe yi wurtoon am normalement te biir Europe ñoom bu ñuy weccente entre Europe taxe boobu du si te ñun bu ñu wecc jaarale ko Western Union wala wala benn xaalis dina dina dinañ ci fay ay taxe bon beneen point bi loolu pour wane ci biir waxtu da nga xam est-ce que am nañ indépendance wala amuñ indépendance par rapport ak loolu. beneen point bi ci gën a nag mooy nga xam ne ñoom itam dañuy participer suñu banque centrale dañu fa am représentant avant ñu am indépendance loolu xëy na waroon naa cee wax ndax bi ñuy jox indépendance yi dañoo teg condition dañuy nangu CFA bi benn pays rek moo bañoon muy Guinée boo Sékou Touré moo bañoon may gis na liñ ko teg ba daanaka réewam am ay jafe yu méttee méttee métti Togo at mi ñëw ñu rey président ba fa nekkoon muy Sylvanus Olympio kooku moom bàyyiwuñ sax mu fekke ko kon ñi ci des yëpp dañu obligé accepter accepter le franc CFA ci biir loolu itam suñ banque centrale yi bu ñu koy créé bu njëkk France la nekkoon année 1970 dañ ko indi Sénégal muy banque centrale pays d' Afrique de Afrique centrale ñu yóbbu ko Cameroun euh, bu njëkk ay français ñoo koy jiite mais léegi dañ koo defee noo xam ne sëñ bi dafa fam nax bu dugg si biir conseil d'administration bi ay ay africain koy jiite bu dee par exemple BCEAO fukk ak juróom benn lañ ñaari français ci nekk mais dañ mënuñoo jël décision tant que unanimité amul il faut il faut ñëpp d'accord te ñaari français d'accord ñu si duñu mën a jël benn mesure ci ci CFA am na droit ñoom droit de veto aussi waaw dañu am droit de veto boo xam ne lu ñu te français d'accord du marché waaw Comore dañoo def defe naa banque centrale huit quatre quatre la mais dañu majorité dañ koy jël ak droit de veto boobu moo ci doy waar mënoo a a wax yooyu si alors ba na daal ci franc CFA bi ñi bokk benn avantage dañu wax ni xëy na moom lañ ci gis mooy prix yi xëy na prix yi du yokk nam daan yokkoo bu njëkk te loolu itam xëy na xëy na xëy na c'est à voir hmm. alors xëy na pour terminer ci diggante indépendance bi ak les pays de la zone kooku moom war nañ mën a xam ni ñun amuñ indépendance par rapport ak CFA euh, bien que am nañ indépendance depuis 1960 xëy na benn firnde laa ci joxe muy 1994 bi ñuy dévaluer franc CFA bi boo ñu ko fàttaliku dañoo laaj président Abdou Diouf une semaine avant mu ne xaalis bi kenn du ko laal kenn du ko dévaluer une semaine après ñu dévaluer ko de 50 pour cent loolu tam France moo ko décidé décidé ne day wàññi xaalis bi te kenn mënu si dara. kon kooku daan du ñu permettre vraiment ñu am euh, kii. te lu ci doy waar sax ministre français de la coopération Roussin bi ci nekkoon quelque temps après dafa dem jël ko ci Bolloré. mu liggéey fa am fa poste bu am solo kon xëy na dévaluation bi ak intérêt économique français yi itam. amoon amoon relation. Hmm. Euh, man sëñ bi li ma gën a xaw a gën a jaaxal ci affaire indépendance par rapport ak monnaie bi itam dañoo wax ci constitution africaine yëpp. surtout bu Sénégal bi ci article 67. ndax dañoo wax ci constitution pays africain yi nekk CFA yëpp que d'abord dañoo wax ni président de la république mooy définir la politique de la nation ku wax politique de la nation politique économique et moo ci ëpp solo te comme léegi amoo contrôle ci sa sa monnaie xaw ma du ma def euh, politique budgétaire ma def politique monétaire nooy mën a définir la politique dama si xaw a jaaxal te itam ci article 67 constitution Sénégal dañu wax ni parlement bi maanaam député yi ñoo war a woote les lois concernant émission de la monnaie ni ñuy defaree xaalis te kon te te loolu daanaka boo seet yenn pays Mali Côte d'Ivoire Niger sax moo gën a garaaw ndax dañu wax ni réew mi moo war defar xaalisu boppam te depuis 1950 defaruñu seen xaalis ko quand même c'est un droit constitutionnel boo xam ne nii quand war nañ ko war nañ ko seetaat bu baax euh, ci ci loolu. même France bi muy dugg ci zone euro bi dafa def référendum nit ñi woote euh, d'accord nañ ci dugg Union européenne dugg ci zone euro mu modifier constitution état bi moo war defar xaalisu boppam te loolu xëy na Sénégal quand war nañoo def woote ba nit ñi d'accord ci ni nañu defaree xaalis bi fii feneen euh, sànq damaa wax 50 pour cent ci li am ci xaalis te loolu 2005 la commencé ba 2005 65 pour cent la woon donc boo amee junniy milliards ñett juróom-benn téeméeri milliards yëpp France lañ ko war a denc ci xaalis waaw. ba pare li ci gën a doy waar bi ñu ñuy imposer suñu politique budgétaire di wax ni sañoo fab ci budget bi def def lii. ndax lañuy bañ mooy xaalis ba nga déposé ci compte boobu manqué waaw loolu tam sëñ bi day beneen domination bu bu méttee métti métti boo xam ne loolu liggéey ñetti xaaj da nga ko war a France par force te loolu kenn kenn kenn mënu si dara euh, euh, xëy na nag bu ñu xoolee ci pays yu mel ay Chine Chine tey bu demee ba nekk première puissance mondiale am na sax moo jiitu États-Unis am seen xaalis bopp moo tax li tax Chine di mën a commerce foo tab gis marché bi chinois yi ñoom suñ bëggee jaay dañuy wàññi seen xaalis mën a jaay li ñu bëgg a jaay <laughs> ñun nag boo amul possibilité boobu te amoo possibilité exporter li nga am exporter ko su néew euh, prix bi mënoo ko fixé loolu dina xaw a xaw xaw doy waar te xëy na bu ñu ci bàyyiwul xel fa muy gën a méttee sax ñëwagul ndax bu ñu signé accord de partenariat économique yi doon wax nga xam léegi dootu amati frontière douane entre Europe ak Afrique loolu dana xaw a yéeme trop ndax ñi la ëpp doole yor sa xaalis di la imposer seen prix te mënoo leen a jaay ñoom ñoo la mën a jaay par force loolu xëy na buñ ci bàyyiwul xel ci kanam tuuti dana dana dana métti trop ci ci ci suñu réew Euh, kon daal fi may fi may terminer mooy benn ministre premier ministre français ma ko waxoon Édouard Balladur mu ne xaalis du affaire technique rek du affaire xaalis rek mais mbirum politique la te dafa day day laal directement souveraineté ak indépendance euh, des nations. Euh, beneen américain bu ñu wax Rothschild moom mu ni daal su ngeen ma joxe am réew bàyyi leen ma rek bu ñu defaree xaalis bi bu leen neexee ne ku neex neex ku neex bind loi yi kon waree na ni pouvoir économique moo pour ci pouvoir pouvoir kii bi xëy na fi may terminer pour wax rapport bi am tuuti ci wàllu mbay ak loolu ak accord yi ñu bëgg a signé yi mooy li ñu wax sécurité alimentaire ak autosuffisance alimentaire ñu naan Sénégal daa war a bay lu mu dundee mën a mën a bay dundal boppam am na ñu wax ne loolu bu mëntoon dundal boppam itam te mën a bay loo xam ne bu ko jaayee am ci alal ju mën a bind jënd dund gan lay doon waaw mais boo yorul sa xaalis nag doo mën a exporter leneen loo xam ne nii da ko mën a jaay pour jënd ce qui fait que doo mën a bay loo dunde te doo mën a bay loo jaay pour dundee pour jëndee ko dund itam ce qui fait muy nekk cercle bu xaw a xaw a naqaree génn boo xam ne ni laaj na xalaat laaj na itam waxtaan ci ak kilifa yi dañ seet daal lu ñu ci génn ndax jàpp naa ne bu loolu amul développement moom dana xaw a xaw a xaw a jafe trop. Bassirou sa waxtaan wi euh, tënku na euh, te am solo lool lool lool yaakaar naa ne ku dégg waxtaan wi da nga xam ne xam xëy ma valeur bi nga xam ne xaalis am na ko. ak solo su mag si am ci développement am réew solo su mag si am ci indépendance su réew waaw ak tamit ñun africains yi sun euh, tolluwaay ak euh, maanaam tënku gin tënku ci ay jàmbur nga xam ne euh, bañ amee indépendance ba léegi ñi ngi jortu ne ñi ngi moom suñu bopp waaye maanaam dañoo yilif waaw ndax ku la yilif ci alal rek ci ci koppar waaw ci ci monnaie yilif na la yilif na la yilif goo xam ne yaakaar naa ne maanaam yilif kawewu ko sëñ bi nag wax nga fi waxtaan wu am solo woo xam ne damay ñëw rek euh, def ci ay commentaire dolli ci tuuti li ma ci njëkk a wax mooy sëñ bi li mu wax tudd na euh, jëmmi xaalis euh, ni ki monnaie histoire am fu mu tàmbalee mu wax ne euh, benn philosophe bu mag ca Grèce moo ko bokk na ci bokk na ci ñi euh, sosoon ñi génne woon maanaam xaalis ba ak ak ngir ñu mën koo jëfandikoo ma ciy sof rek ne boo xoolee euh, lu tolloog mille ans ci ci ci ginnaaw mën nañ ne ci la Sinwaa yi njëkk jug tàmbalee jëfandikoo ñoom. maanaam ay ngànnaay ak yu mel noonu di ko def ci eh, jum ni ki jumtukaayu eh, weccante maanaam ci eh, def ko xa jumtukaayu xaalis ba mu yàgg nag loolu xaw a diis loolu boo ko dee seet mooy ay ay ay ay ay mille cent avant Jésus Christ muy njëkk yonent yàlla Isaa maanaam ci noonu ci jëflanteen woowu ñu doon jëflanti ci lañ mu mujjoon changé ko gën koo woyefal gën koo ndawal ay jumtukaay. ay royteef maanaam ay ay ay échantillon ay ay modèle yoo xam ne dañ koy dañ koy sàkk di ko di ko di ko jëfandikoo waaye nag lool itam euh, buñ ko defaa seen poos wala nangam nangam muy xaw a diis yooyu ñu soppiwaat ko mu gën ko tuutal ba mu yor forme yi ñu yor tey loolu bokk na ci euh, histoire u euh, xaalis bi nga xam ne xam nañ ko boo ñëwee tam ci wàlluk alal tamit woyefut ndax ndax ndax boo ñëwee ci alxuraan tudd na ko ay yoon yoon maanaam du du ni ki xum waaye alal ndax alal dafa am solo ci nit kon ci noonu boo ñëwee ci alxuraan tudd na ko yoon yoon euh, wa atal maala ala hubbihi wa nahnu ahaqu bil mulki minhu walam yuta saatan min al maal wal banuun sinatul ayaatu dunya wa tuhibbuuna al maala hubban jaban wala nabluwannakum bi shay'in min al wal juux wa naqs min al wala taakulu amwaal yata amwaalakum bil baatil li taakulu fariqan min amwaali nnaas masalu lasiina yunfiquuna amwaalahum allasiina yunfiquuna amwaalahum laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal azaa kallazii yunfiqu maala wa masalu lasiina yunfiquuna amwaalahum allasiina yunfiquuna amwaalahum bil leyli wan nahaar in tubtum falakum ruusu amwaalikum inna lasiina kafaru lan tuxniya anhum amwaaluhum inna lasina kafaru lan tuxni anhum amwaluhum waaw la la la la tublawunna fi amwalikum wala takulu amwalukum wa atul yataama amwalukum dégg nga wala takulu amwaluhum ila amwalikum wala tuutu sufaha amwalukum fa in anastum minhum rusdan fadfahu ilayhim amwaluhum fa isa dafatum ilayhim amwaluhum inna lisina yakuluna amwalan yataama in tabtaxu bi amwalikum muxsinin yaa lisina amanu la takulu amwalukum yooyu yëpp di di ay baat euh, yoo xam ne répété nañ ko lool ci alxuraan di wundu li al li li alal di wundu di ko amal di ko di wane njariñ li ñu gis ko ci ni ko sëñ bi waxee euh, monnaie dafa am solo waaye ñun réewi Afrique yi dañoo am problème ndax boo xoolee euh, français yi ci mille neuf cent trente trente neuf ci lañ créé seen zone franc Euh, Son France bi nga xam ne tey biñ ko créé liñ ci jublu woon mooy bu ay xeex amee wala dara ñu mën caa ñëw di fa wute li ñuy tuddee ay matières première yu wala yu mel noonu ñu demati ba 1945 ñu créé franc CFA waaw muy euh, franc bu colonie africain yi noonu noonu lañ ko tuddee léegi loolu kon ñu xamee ne loolu kon Afrique taxu koo jóg. ñu demati ba 58 mu wëlbati kooti tuddati franc de communauté africaine bi yaakaar naa waaw communauté française yaakaar naa loolu waaw léegi loolu woneeti ne ñi ngi ñi ngi def ay jeu maanaam fee bu njëkk colonie lañ ko tuddee fii léegi communauté ñu demati ba indépendance yi jot tamit ñu wëlbati kooti ko tuddeeti ko zone de euh, nu ñu koy waxati euh, euh, franc. xaw ma nuñ ko tuddee am na daal beneen sans beneen tur buñ ko tuddee ti nga xam ne loolu ba léegi ba léegi ñi ngi ci ñi ngi ci seen jeu yooyu ñu doon def nga xool ne euh, maanaam comme ni ko sëñ bi waxee banque africain yi banque centrale yeeg ba banque yi ñu am dañuy jël seen moitié ci seen i avoir extérieur maanaam li nga xam ne seeni i xaalis la dañ koy jël yóbbu ko ca euh, maanaam trésor France trésor public bu France su ko defee moom mu jëlaat ko xaalis boobu jëlaat ko investir ko ci seen ci ci banque ci ci bourse France gañe ci di ci gañe xaalis bu dul jeex di ci di ci investir ci seen éducation di ci euh, taxawal ay police di ci taxawal di ci taxawal ñun africains yi ñu taxaw fii soxla ko bay bëgg a dee mënuñ cee jot comme ni ko sëñ bi waxee ay mille milliards ah waa huit mille milliards dama jóg sax waa huit mille milliards ci xaalis yoo xam ne ñu ngi koy am foofu yaakaar naa ne daa ngeen dégg lay Wade ay jamonoom mu koy mu ci revendiquer lu bëree bari pour bëgg ñu wat ko xam naa ne ñu bëri sax ñu ngi wax ne attitude yooyu mu doon amee bokk na ci yi nga xam ne bokk na ci li ko France bañe woon contre ko ba bokk na ci xeex yu métti yi ñu ko xeex ba mu jóge fii ak bépp africain nag boo xam ne nga yor nga taxawaay yu mel noonu maanaam boo xoolee da gis ne. compte d'opération yooyu nga xam ne ñu ngi ko am ci ci biti maanaam ay problème yu réerée la France ci lay sukkandiku di financer ay ay lim bëgg lépp sëñ bi wax na ko sukkandiku wëlaat wëlbatikuwaat ñëw di ñu dimbale waaw di ñu dimbale boo xoolee ci 31 décembre 2015 passé finance bi nga xam ne UEMOA defal na ko France nga xam ne yëkkat nay xaalis jox ko dimbal kii ko ko eggoon na ci trois mille quatre cent cinq milliards waaw yoo xam ne déposé na ko fa te bu njëkk avant 2014 euh, eggoon na ci trois mille eggoon na ci trois mille euh, waaw quatre-vingt-dix-sept ci 2014 te loolu boo ko xoolee mooy tolloog moitié wu. bit euh, bit bu Sénégal muy produit intérieur brut bu Sénégal moitié bi mooy tolloog loolu léegi nga xool ne financement boobu nga xam ne euh, euh, dégg nga France jot na ci sun af pays africains yi amuñu ca lu dul lu tolloog 23 milliards ci bénéfice ñoom lañ ci am 23 milliards ci 3000 et quelques milliards sëñ bi seetlu loolu. waaw nga xam ne loolu mi ngi tolloog zéro virgule soixante-douze pour cent te loolu mi ngi am depuis mille neuf cent quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze euh, mille neuf ba léegi kon na ngeen xam ne Afrique ci condition yi lay dund ba léegi waaw maanaam ak njaam gu mag a mag a mag sëñ bi ni ko leeral léegi nga gis ne réew yi Afrique yi fañ tolloon tollu weesuwuñ ko ba léegi Corée du Sud boo ko dee nattaleeg Sénégal am na diggante su gàtt soo xam ne ñoo tolloo woon kër Corée léegi man nañ ne bu jéegoo fukki jéego ñun benn sax jéego jéegogun ko kon monnaie bi lu bono bon la ci Afrique waaw luñ ñu war a xeex la suñ war njiit yi itam lu ñu war a taxaw la waaw te loolu nag ñun peuple bii ñun ñun ñun ñun ñun doomi réew mi ñoo war a am fulla xeex ko waaw te ñu ngi taxaw fii ci Touba itam. di woo ñi jiite réew mi ñuy xalaat ci xalaat yu mel noonu ndax am réew kat ku jort ne euh, diine kese la wala diine sax ku ko bëgg a séddale def ko diggante àllaaxira ak àddina ndax nga sa bopp. dégg nga maanaam kon ngir bañ a guddal rek bëri am na lu bëri luñ ci mënoon a wax waaye kon dañ koy gàttal waaye li ci li nga xam ne bëggoon nañ ko wax daal mooy diine moom euh, diine. du dem ca jàkka ja del si toog waaye diine euh, xo sa dund ci la xul inna salaati wa ma wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin loolu lépp ci la xàjjalewut jàkka ak tool yee yonent bi ku ne xam na ne ña gis ca xare ya ña ngi ko daan gis ca marché ba ña ngi ko daan gis ca miraas ma ña ko daan gis ña ko daan gis kon loolu nañ ca xamee ne kon diine lépp la boole euh, Afrique nag yaakaar naa taxawaayu ku mel ne sëñ Touba taxawaay yu mel noonu soxla nañ ko waaw ndax sëñ bi ku ne xam na ne eh, ñëwul rek di jàngaloo nit ñi ak a ak a ak a waaye daf leen a liggéeyloo itam waaw ku ne xam ne yoon mu murit ci ñi kenn dàqu leen liggéey waaw tool yi eh, li taxawal jumaay Touba ji rek misaal la ci waaw li jëlee raay ba njaareem misaal la ci te tool yu mel ne xel koom ak yu mel noonu misaal la ci ku wax liggéey nag. mënoo réere euh, xaalis kon ak ahamiya bi nga xam ne xaalis am na ko waaw sëñ bi tam euh, gis naa ne junj na euh, yu bare bari ci xaalis fi muy jaar ak ak ak ak waaye ngir bañ a guddal rek yaakaar naa waxtaan wi am na solo te bëgguma cee téye lu yàggal am na wax waroon nañ fi waxtaan léegi waaye dafa am ñeneen ñoo xam ne war nañoo bokk ci waxtaan wi yónnee nañ ma këyit wi wane ne ku mel ne sëñ Mokhtar Sourang war naa. Euh, waxtaan euh, bu ja buñ jullee timisit ba noppi sëñ Ahmadou njaay euh, ngiraan bu ma jawliwut dana wax dana ci joxe kàddu moom itam wax ci sëñ ma surang surang mi nga xam ne moom lañ tuddee barab bi moom la tuddee jataay bi tey bi ko defee nag buñ jàllee nag am na keneen koo xam ne dana wax ci turu njabootu sëñ ma surang surang boobaa danañ ci danañ ci wax waaye li lu mën a xew daal sant nañ bu baax sëñ sëñ Basiiru ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne def nga ko euh, tënk na itam lu bëree bëri loo xam ne bëggoon naa ko wax ba munuñu ko wax waaye ñu gën a xam ne daal bokk urgence la fi ne nii waaye sant nañ yàlla ba ci 31 yaakaar naa bu ma jawwlil 30 décembre bii euh, euh, wax nañu ne maanaam Afrique am na yéene yi am euh, monnaie boppam boo xam ne ci ron Nigéria lay lay lay euh, benn monnaie unique te loolu tam jéego yu jara sant la euh, ñuy soññ suñ njiit yi ñu gën a góorgóorlu ci loolu ndax sëñ bi ni mu ko waxee xam nga fi mu boo xoolee suñ zone franc bi ñu nekk daanaka dañ ko liggéey ñeel doxandéem yi ñeel tubaab yi ak français yi ak yu mel noonu ndax ba suñ banque yi amuñu xaalis sax bu ñu lebalee waaw fi ne boo xoolee fu mel ni Afrique du sidd taux bi ñu bi ñu egg ci wàllu lebale di di mën a jox ay crédit euh, seen entrepreneurs yi egg na ci cent cinquante pour cent bu dee Europe àgg na ci cent ñun ay trente ay ay ay ay ay ay ay vingt trois xawma yu mel noonu euh, weesuun foofu bu ko defee li entrepreneurs yi mënoon a def ci biir ci ci ci ci ci sun sun sun barab yi ay tubaab yi ñëw di ñu ko fi defal su ko defee bu noppee jëlaat xaalis bi yóbbu ko bu mel na kon day mel ne dañoo bay sunu tool ba mu naat ñu bàyyil ko fi tubaab yi pour ñu ñëw jëriñoo ko yi nga xam ne Euh, ci lañ ci la suñ njiit yi war a jito war a liggéey waaw ci lañ war a liggéey bu baax a baax su ko defee itam góor góorgóorlu ci maanaam am independance parce que indépendance du am naa independance waaye indépendance lu ñu war a dund lu ñu war a teg la ñu koy ñu koy gis ku ne xam na ne suñu entrepreneur yi fii ci réew mi ñu ngi jànkonte bu baax te am réew su fay entrepreneur yu am doole amut liggéey du fa am xaalis du circuler dara du am waaw ndax xaalis bépp ay jàmbar ñooy ñëw liggéey ko jël ko yóbbuwaat ko même boo xoolee euh, lii nga xam ne gis nañ ko fi mooy ay entrepreneurs yi étrangers ñooy ñëw ci réew mi dégg nga ñu jox leen marché yi ñu liggéey ko jëriñoo waat li fi jël jël ci lu néew maanaam transfert technologie sax du fi am maanaam nit ñi dañuy deltuwaat euh, del resté fi ñu nekkoon di ay jàmm te yooyu dafa dañ ko war a xeex bu baax a baax niki noonu lañ war a xeex itam làkku français wii nga xam ne ñu ngi koy jàgg ci réew mi muy làkk woo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent yi sénégalais yi dégguñu ko waaw mën nañ ne moins de 11 pour cent ñoo koy dégg ci réew mi ñi ci des dégg déggaloon nañ benn làkk Sénégal gépp koo ci wax waaw am yee mu ne wa mu ne ah boole nañoo déggandoo làkk war nañoo ma te làkk réew mënut a développé te sukkandikul ci boppam fi ne nii sëñ bi bi ci waxtaanam léegi tudd na lu am solo nee na am na président boo xam ne biñ ko laajee mu ne li ma fi nekk lépp xawma woon ne français fa nii la mel li ko waral mooy làkk bu bon bi nga xam ne jàngal lañ ko ko ci te fekk boobu bu gone ga ndaw sax boo ko jàngaloon ci làkk làkk boppam ca saasa day xam li xew lépp waaw yooyu nag yu ñu war a xeex la Cheikh Anta Diop wax ne un point qui se déplace engendre une ligne muy boo bëggee tomb boo bëggee rëdd dangay ngay tomb xëcc mu ne loolu li muy tuuti tuuti ab réalité scientifique la boo xam ne boo ko bëggoon jàngal africain bi soxla na juróom benn ba juróom-ñaari ci at at ngir nga jàngal ko ay grammaire ak yi dégg nga orthographe ak yu mel noonu pour mën a xam réalité bu ndaw boobu te loolu boo ko waxee ci ab boo bëggee tomb da ngay boo bëggee rëdd da ngay tomb xëcc loolu africain boo gone goo gën a boo ko waxee mu xam ko yooyu mooy problème yi nga xam ne Afrique moom lay jànkoonteel te ñu war a taxaw ci mu dañ waaw te war koo ñeme nag bu fekkee suñ njiit yi fi nekk ay marionnette lañ wala ñoo xam ne ñemewun ñun peuple bi war nañoo ñeme wax ko nag parce que nag ñoo moom suñu bopp te buñ bëggee tamit faw na am fulle nag wax li nga xam ne mooy mooy li am loolu mooy li xam ne bëggoon nañ ko wax kon kàddu gi ñu ngi koy jox euh, sëriñ Sidil Muxtaar Sourang dama gis ni li sëñ Cheikh développé day yokk am loo ci yokk dana jafe lool man li ma gën a yéem sax mooy sujet bi dafa am solo am solo boo xam ni euh, lu demee nii war na ñu koy yaatal lool ndax nit ñi dañ jàpp ni Touba ay jëllkat ak fi ne naam ay jëllkat a ngi fi waaye euh, ni ma déggee nga développé sujet bi li mu wane mooy ay borom xam-xam yu wér ñoo nekk. ndax li mu wax yokk ci dara dana jafe ndax wane na ni ci li ma fi jot a fekkee que ni franc CFA moom gàllankoor la boo xam ni fii ñu ngi ci pour ñu développer Afrique dana jafe pour ñu développer Sénégal dana jafe wane na ñaari yëf moo di système de garantie bi am ci franc fa maanaam bu ñu bëggee commerce ak bitim réew. genn wàllu volume commerce bi day doon garantie boo xam ne dañ koy bàyyi ci banque centrale européenne maanaam bu dee six mille milliards d'euros trois mille milliards daa ko fa bàyyi wane na it ni banque centrale nga xam ni moom mooy banque banque yi bu France dafa dafa am ay ndaw yu fa toogal France te ñaar ndaw France yooyu bu ñu àndul ci dara rek mënuñu def décider dara loolu lu garaaw la loolu li mu wane rek mooy ñun kat naam am nañ indépendance waaye moomuñu suñu bopp ndax tubaab yi bu njëkk dañ fi nekkoon ak doole gis ngeen li ñu tuddee colonisation nga xam ni ñoom bi ñu fi nekkee dañ daal jël suñu maam yi d'abord dañ njëkk ji jël suñu maam yi di jaay waaye doole lañ ko doon defee colonisation yi ñoom ñoo fi toogoon di dox leen neex waaye bi ñu demee ba indépendance am dañ ko defe ak xel maanaam dootul doole la domine Afrique waaye ci xel ak ci xalaat lañ koy defee dañu jël seen ay nit yoo xam ni daanaka ay tubaab yu ñuul la ñuy doon ñoom ñoo leen fi nekkal waaye dama bëgg wax rek ni dafa am ñaari yëf yoo xam ni réew mu mun amul. développement mënu ci am benn mooy kalaama bi réew moo xam ni kalaama jàmbur ngay làkkee ndax tubaab bi fi mu ñu naxe mooy dafa ñëw ni ñu yéen kat kalaama bi ngeen yor muy wolof ak tukulóor ak séeréer ak joolaa fii rek la mun a yem kon dama leen di sama làkk ngeen di jël pour wax ak ñi ci des waaye loolu ñëpp xam nañ ni. léeg nga jël sa doom dugal école mu doon ku am xam-xam ku am xel ci kër ga waaye bu dugg rek day mel ne day fay li tax loolu moo di day day am kàllaamam ba pare waaye foog mu jàng beneen kàllaama pour pour pour pour xam nu muy waxee taabal pour xam nu muy waxee semis pour xam nu muy waxee marché loolu loolu jàng boobu day tax ba maanaam bu waroon def benn ci ci temps pour. xam dara dana def dana ko duble alors loolu mu doon ak li ak yeneen yi nga xam ne aussi dafa ànd ak kalaama maa ngi doon wax keroog ci benn débat ne waa Touba bañuñu école waaye li ñu bañ mooy sa doom dugg école ñàkk diine te moom man ma te moonte de ñoom ñu ngi am seen école yoo xam ne ñu ngi ci jàngale catéchisme seen diine ñu ngi fexe ba ñoom créer seen école yoo xam ne seen diine du réer fenn boo xëyee suba tey li ñuy njëkk def mooy jàngal seeni doom seen diine kon ñu nit te loolu état généraux de l'éducation waxoon na ko waxoon na ni maanaam jàngale diine lu war la dañu war a dugal jàngale diine ci école yi parce que loolu bu amoon rek mu wóor la yow sa doom bu bu jàngee diineem bala muy pare école am bala muy pare baccalauréat am wàcc ñaar yoon wala ñetti yoon loolu bu amoon rek ñëpp dugal seen doom école alors kon loolu gàllankoor la muy kalaama bi mais beneen gàllankoor bi tubaab yi daf ñu ni yéen comme que yéen amu leen da ngeen di ñëw jaare ci man pour jëndanteeg jaay ak ñi des ci bitim réew xam nga bu njëkk avant monnaie di am sëñ bi sax xam naa ni war na ko wax. nit ñi daaw mo wécc mu ne amul woon maanaam dañ doon toog moo amoon maanaam da am sa dugub maam sama ceeb nga ni ma jox ma nangami kilo ci dugub ma jox la nangami kilo ci ceeb bu njëkk noonu la woon waaye ñu dem àddina di dox di dox ba nga xam ni mun nga ni man kat damaa amee dugub man la man kat dugub bi laa bëgg waaye du ma la jox leneen ñu dugal ne moo ne nag doon loo xam ni dafa am lu muy lu muy dafa am valeur bu muy am. alors li tax monnaie am solo lool moo di tey jii bu fekkee ni monnaie bi dafa fort lool yow li ngay defar sa dëkk doo ko mën a jaay bitim réew xam nga tey boo seetee suñu menuisier yi xool li ñu amee xam-xam xool yu rafet yi ñu def waaye tey bu fekkoon dañ ko bëgg jaay ci marché mondial bi dana seer seer boo xam ni kenn du ko jënd benn exemple rek laay joxe mooy AGOA. américains yi dañu def benn système boo xam ne dañu diggante Amérique ak yenn réew yi duñ ci fayiku droit de douane waaye mun naa ni ba léegi accord boobu bien que am na waaye daanaka musul dox loolu li ko waral mooy tey bitim réew booy jëflante ak di jaayante jaayanteeg moom euro bi cher lool kawe lool bu boobaa yow nit ñi li ñuy jënd sa li ngay defar wala li ne sa réew boo koy jaay day day day am valeur boo xam ni maanaam doo ko pour nga jaay ko day jafe te loolu lu am solo la parce que nit réew mënul développer te production maanaam li muy liggéey moo xam mbay mi la moo xam industrie bi la moo xam li muy liggéey ci réewam mënoo ko jaay bitim réew te doo ko jëfandikoo kon ñoom dafa mel ni dañ def système boo xam ni ñoom dañ ñuy jaay waaye ñun duñu jënd duñ leen jaay mukk te fii loolu mi ngi am bu fekkee ni làmp bi micro bii ma yor kaye bi ma yor yére bi ma sol lépp lépp lépp dañ koy jigaa jégaani bitim réew te ñun duñu def lenn loo xam ne boo xoolee la part de l'Afrique dans le commerce mondial boo xooloon Sénégal représenté wul sax zéro virgule zéro un pour cent maanaam benn point la rek boo xam ni tekkiwul dara fii loolu mi ngi am nag duñu dem fenn te moonte de ñun suñu réew yi boo xoolee. richesse bi am ci suñu réew yi amul réewu tubaab yi tey Europe Afrique fi euh, américain wax nañ ko nee nañu jam at at yi ñu jëm fii ñaar fukki at fa téeméeri at côte africaine pétrole ak gaz ak yëpp fii la nar a soqee ko maanaam boo xoolee chinois yi daw si ñëw àdduna bi yëpp daw si ñëw li waral loolu mooy richesse yi ne ci suufu Afrique parce que ñoom li ñu amoon utiliser nañ ko ba mu jeex Europe Amérique pétrole ba ñu amee woon jëfandi noon jëfandikoo nañ ko gis nañ ñi sax ñun am nañ yeneen énergie yoo xam ni muy énergie renouvelable nga xam ni muy jant bi nga xam ni yàlla moo ñu ko jagleel mu doon richesse boo xam ni maanaam mun nañ ci defar lu dul jeex ci taal ay làmp ci euh, énergie maanaam loolu sax dafa yéeme donc avenir bi fii la maintenant nag lii problème mooy ñoom bu doon seen sago tubaab yi lépp lu ñu am ñun africains yi ñun sénégalais yi ñoom ñoo fi nekk di ko jëriñoo waaye ñun ñi nga xam ne askan wi du ci jot dara te loolu monnaie bi bokk na ci li nga xam ni tant ñu ngi nekk ci zone franc mënuñu développer mukk ndax ci ñoom la ñuy jaar pour jënd ci ñoom la ñuy jaar pour jaay bu fekkee ni nag yow munoo jënd directement mënoo jaay directement foog sa mu jaar ci beneen mone munoo fexe ba jëm ci kaw alors te loolu am na ay firnde yu bare parce que même dévaluation bi muy wax nii parce que du ñu xëy suba tey rek ne monnaie bi téeméer la woon def nañ ko fukk maanaam ku amee woon cent millions cent cinquante millions nga yore loolu lu yéeme la parce que dañu xëy ba sax def ko te bañ koy def même ñi suñu président yi fàttali na ko sànq xamuñu woon ni loolu dana ne. France ko décidé ndax ñoom ñoo seen mone la te moonte day or yu ñu bàyyi seen banque centrale yi xaalis ba ñu fa bàyyi garantie yañ leen bàyyil ñoom parce que dañ ni yéen amu leen monnaie ñun ñoo leen di garantie donc dangeen leen di da ngeen ñuy jox lu tax ñu leen di garantie waaye lañ fa garantie Afrique mun nañ ci développer sax ba du soxla leb kenn parce que alal bu bare lañ fa bàyyi waaye bi ñu defee dévaluation bi. nit ñi dañu amoon yaakaar ni man bokk naa ci jamono jooju ma yoroon benn usine daal ñu ni ah comme que dévaluation bi am na boo demee bitim réew di jënd dàll day gën a cher kon kay xëy na opportunité la sax pour ñu créer usine fii pour di defar dàll pour di ko jaay waa Sénégal waaye dinaa leen wax euh, euh, jafe-jafe yi ñu ci am ba nga xam ni expérience la boo xam ni même banque mondiale ak fonds monétaire man yàgg nañ ma invité ci ay débat yu demee noonu pour wax expérience boobu ñaari ñaari euh, ñaari problème lañ ci am bi ci jiitu mooy bi ñu taxawalee usine bi normalement boo demee bitim réew dàll dafa waroon cher lool ba nga xam ni suñu dàll moo waroon gën a jar waaye ndekete nit ñi bi ñu xamee ne dàll bi day gën a cher tubaab bi dañ def ay dafa dañoom ay usines yoo xam ni bu ñu jaayee seen dàll ba mu jeex dañ koy wanteer bu ko defee bu commerçant ba demee dàll bi woon jar cent dollars day jar deux dollars commerçant yi bu ñu jógee ñëw xëpp ko ci dëkk bi ba mu ko defee ñun dañ daan jékki-jékki parce que jamono ju dafa am benn dàll marque dàll bu mag bu ma doon représenté muy New Balance ñooy troisième mondial bi fi bi fi ñëwee ma yóbbu ko Colobane ma ne ko dama bëgg ñu dox rek xool daal dàll yi ni mu mel ak li muy jaar ci Sénégal bi ñu demee Colobane ñu fekk fa dàll boo xam ne boo demoon New York mi ngi jar cent dollars cent dollars lay jar New York ñu fekk ko foofu dix mille francs ñu jënd dàll bi ñu ñëw fekk temps yu amoon na ay techniciens yoo xam ne ñu tasaare dàll bi bi ñu ko tasaaree cuir bi rek jar na dix mille francs parce que xamoon nañ lan mooy cours mondial cuir bi ci jamono jooju waxuma nag ña ko liggéey courant ba liggéey et cetera. ca laa ko ne nag yow foog ngeen wax ma nag lii nu mun a am parce que lii seen usine la jóge je signale simplement que usine yëpp Chine la ne gis nga tey dangay nekk Sénégal ñu la naan sama dàll bi sama montre bi usine amatul Europe usine amatul Amérique usine yëpp Chine la ne da ñëw commander leen ni leen lii laa bëgg ñu defal la ko alors ci laa bi ma bi ma joxee nag prix yi nga xam ni ak usines yi ne ci siine ci laa xam ni ñoom. bu ñu jaayee Europe ba mu jeex mbalit moomu moom la ñuy indi Afrique nga xam ne bu ñëwee Afrique bu waree jar téeméer juróomi daram lay jar alors loolu nekk lu lu lu yéeme kon doon même suñu industrie yi bu taxawee du mun a taxaw parce que tant lu demee noonu mi ngi am du mun a taxaw te loolu dafa dafa am ci yére dafa am ci meuble da ngay dem Europe fekk fa ay meuble yoo xam ne ay seconde mais ay second fin de série lay doon wala mu am défaut bu ndaw ñu indi ko donc ñun suñu dëkk yi ay mbalit la yoo xam ni lépp loo fi gis leneen gis fi loo xam ni daf lay yéem sax nag naka la ko mun a nit mun a amee donc du ñu mën a taxaw mukk du ñu mun a am industrie du ñu mën a am lenn loo xam ni mun nañ ko jaay bitim réew parce que bu ñu demee bay waaj a taxawal bay waaj a am tissu industriel rek loolu mënul ànd ak euh, ak développer euh, lu demee noonu pour waxe que ni. ne dafa am solo lool évidemment loolu pays africain yi wax na ko léegi ñu ngi commencé jël conscience ci lool waaye loolu dafa am lu mu laaj dafa laaj ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw ñu am fulla am fayda parce que monnaie munoo ko def te booloo amul parce que tey jii banque centrale bu ñu d'accordoon nii garantie bi France di joxe ñoo mun nañ ko defal seen bopp rek tëggal seen bopp moo ne mais demal seen bopp mais nag est-ce que volonté politique boobu dana am parce que li ñu war a xam mooy ñoom xëy na tubaab bi nekkatu fi ci jëmmam waaye ay nitam la fiy teg tey jii Afrique képp koo xam ni àndoog ñoom ci wàllu xalaat ak ci wàllu politique sàkkal nañ la pexe da ngay xool ku mel na xolo tey Libi xolo feneen tey jii réew yooyu yëpp ku mel na Kadhafi bi mu commencé wax unité africaine et cetera dañ ko jël rey maanaam fépp képp koo xam ni am nga xalaat boo xam ni pour développer continent bi te doo sukkandiku ci réewu tubaab yi ñu sàkkal la pexe alors kon bon li ci des nag mooy man je pense que ñun suñu responsabilité mooy fexe ba ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñu koy tànn di farlu lool ci loolu di fexe ba nga xam dañuy tànn ñoo xam ni dañu fiy nekkal non tubaab yi waaye dañ fiy nekkal askan wi ñu ngi wax waxu pétrole mais nañ fexe ba pétrole bi bu feeñee mu jëriñ askan wi parce que am na réew yoo xam ne pétrole feeñ na fa waaye dafa jëriñ tubaab yi rek lay jëriñ nañu fexe ba richesse yi ak koom-koom bi jëriñ doomu Afrique donc daal li ma wax mooy thème bi am na solo am solo boo xam ni parce que tey jii ñu ngi jàpp ni développement leneen la mais développement tant que mbirum kàllaame bi réglé wuñu ko tant que réglé wuñu affaire monnaie lu ñu jàmbaare jàmbaare lu suñu menuisier jàmbaare jàmbaare lu mbay mi jàmbaare jàmbaare mbir mi du dem fenn donc daal maa ngi leen di sant di leen encourager di leen wax ni man de j'ai été impressionné ci en tout cas famille bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax parce que bi ñu fi ñëwee xam-xam lañ fi fekk li daal wane na ni Touba ay borom ay ay borom diine ngi fi ay borom daanukat a ngi fi waaye ay borom xam-xam ngi fi maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. jërëjëf Serigne Mokhtar Sourang. ci waxtaan wu am solo woowu nga xam ne def nga ko fi waaw ñu ciy sof rek di xamale ne euh, mbir yi moom noonu rek la mooy am réew dañuy sukkandiku seen bopp ku sukkandikul sa bopp nag maanaam doo dem euh, lu aju ci làkk woowu muy wax dama ko yàgg a wax ne làkk wi nga nàmp mooy aw mooy boo koy seetlu mooy aw tur làkk wu état woo xam ne làkku doxandéem la mooy dàkkantal sa tur moom fu ñu ko waxee rek dangay daal di wuyu dàkkantal nag fu ñu ko waxee mën ngaa jaawale ma xam de de xalaat yow lañ wax wala déet kon làkk maanaam dafa am solo ngir mën a euh, dékku xam-xam waaw nit ki lu mu yeewu yeewu ba dëgg làkku jàmbur itam day am jafe-jafe yi man koo sotti njabootam waa ndax njaboot gépp moom njaboot gi bokkandoo nañu dëkku làkk kon war naa mën a sukkandiku ci làkk woowu ñu déggandoo mu tas ci xam-xam Sénégal bu ñu bëggoon a dem làkk yi nga xam ne moom la leen yàlla jox moom la ñuy sukkandiku jël làkk wu mel ne anglais bi nga xam ne foo dem ci àddina bi wax ko ñu tontu la ñu teg ko ca waaw bu dee nit diine la ñu jël arab teg ca loolu ab solution la li ci toppaat. réew mi am nañ problème li askan wi di dajale lépp ak li leen dikkal jóge ci bitim réew ci ay ndimbal wala leneen ak leneen lépp réew mi moom ko ay tubaab yi ñëw jël ko yóbbu ko loolu nag dafa war a dakk bokk na ci anam yi nga xam ne war na ne mën a dakke njiit li di njiitul réew mi dafa war a wut ay cabinet yow xam ne lii seen spécialité mooy Euh, entreprise yi nga xam ne ñu kàttanuk mën a def seen i liggéey ci wàlluk alal wala yu mel noonu ñu wutal leen cabinet yoo xam ne ñoo leen di accompagner di leen jàppale suñ bëggee xaalis bu ñu leen lebal ci banque banque bi ci jëm boppam ay garantie lay soxla cabinet boobu moo war a ñëw taxaw taxawaayu garantie nga xam ne su ñuy lebalee xaalis bi ci cabinet bi lay jaar cabinet bi mooy topp entreprise bi muy def ay liggéeyam ba mu pare su ko defee bu amee problème bu ko defee entreprise bi. mën a euh, waa cabinet bi mën koo gàdd boobaa cabinet bi dana jël responsabilité boobaa état bi état bi moo war a taxawal cabinet bu mel noonu nga xam ne ay euh, bu dee ci wàllu BTP la wala dara war naa mën a am ay techniciens yoo xam ne ñoo fay nekk xam liggéey bi xam heure bu ne lañ war a def ci liggéey ba bu ko defee yooyu bu ñu ci toppee tuuti rek danañ créer ay entrepreneurs yu dul jeex yoo xam ne tey dinañ mën a taxawu réew mi ci wàll yu ne waaye mënuñu am réew moo xam ne lépp lu fay am njariñ ab entrepreneur bu jóge ci bitim mooy ñëw def ko jëlaat yëf yi yomb yooyu bokk na ci yi nga xam ne war nañ koo mën a proposé bépp njiit lu fi nekk nga nga nga ciy jàpp parce que ab réew bu ay doomam yore réew ma moom ko rek ci wàllu liggéey lépp rek réew ma naat loolu moom bokk na ci li li nga xam ne bëggoon naa ko ci doon. léegi nag xam naa euh, kàddu gi dañ koy jox sañ sëñ Abdou samat mu ñaan waaye euh, euh, waaw bu dee ñaan kon mu ñaan rek bu ko defee ñu tëj jotaay bi jërë ngeen jëf.